na ci wax ci ci xët yu njëkk yi l'observateur tey dafa ñëw nag euh, ci enquête bi nga xam ne mooy ci génn àdduna étudiant boobu nga xam ne mooy Fallou seen euh, donc ki nga xam ne moom lañ yaakaar ne moom lañ jox ci ne moom moo ko faat muy euh, kenn koo xam ne ci gendarme gendarme la donc nekk benn sous-lieutenant Sané fi mu nekk nii nag parquet tey dina fa dem Moustapha Sané bu amul tuuti ñaan rek boo moytul mandat depo la jëm Ah, waaw maanaam caabi da koy waaw caabi da koy da koy féete gannaaw donc l' observateur tey waxtaan na si waxtaan wu yaatu nag ci page neuf am euh, donc loolu nekk li nga xam ne si kaw ñu ñëwaat également ci ki nga xam ne moom mooy euh, Alioune Sall donc ba léegi xam nga fan yi nag moo tegu ci jal bi ah, waaw fi ne ni moom gaz waaw ah, fi ne ni moom moom moo moo moo bindoon ni tama donc moo tax it fi mu ne nii euh, ñu ngi koy tëggee ni tama donc coow li bëri na mu nekk loo xam ne nag Alioune Sall dafa dem nag ba léegi nag fi mu nekk ni célébrité mondiale la waaw donc maanaam daanaka daal boo buggee dégg-dégg

xam nga nag lu ci wax. xam nga titi. du du koy ko tout le temps tout le temps. su demee ba toog ba waxtaan. waaw dafa veut dire événement la. waxtaan et puis boo xoolee photo bi ci L'Obs sax mi ngi jël loxo di kii. Euh, surtout nag waxtaan gi li mu wax ci papam ak sur sa vie donc nekk na loo xam ne euh, kumpa la ñu bëri ñoo xam ne bëggoon nañ ko xam donc l'observateur ñoom dem nañ ba. am luñ ci luñ ci taataan waa ci et puis euh, Paasan tamit di def liggéey bu. jéggi dayoo si wàllu communication voilà Paasan Seck voilà donc ko sama sama sama frère donc papa aussi ñukoy ñukoy donc Titi mi ngi nonu donc waxtaan si waxtaan donc ñi bëgg am lu leen ci Titi euh, nañ donc euh, ki nga aussi moy xam nga ñi ngi Coupe d'Afrique bi. dëgg la euh, Ngom ak dañ mettre à l'écart. d'accord donc légui gars révéler révélé nañ lu ñu mettre à l'écart donc du ñak gars bu ñëmé ci l'observateur ko. kii tamit xam nga carnet secret day l'observateur da koy faral di def. tey nag ci page 15 am dafa indi Ligue Nicolay. xam nga Ligue Nicolay promoteur de lutte boobu nga xam ne vraiment sax làmb suba defe naa. voilà et puis bëri woon na ay frasques ak ay affaires yu képp xamul yoo xam ne daal. dañ siy kii léegi ligue boobu nag moom nee lépp li coup yi nga xam ne dañ ko koo jox ak ay combine yi mu subir yëpp. donc ak ay sax li gën a garaaw mooy ay proches yoo xam ne dañ dañ ko trahir. donc déjà déjà loolu dafa nekk loo xam ne lu.

dañ ko réhabilité waat fi mu nekk nii donc loolu aussi nekk euh, loo xam ne fi mu nekk nii gars yi dina ci am euh, liggéey bu baax a baax Modou Diagne Fada mi ngi doxal de waaw mi ngi doxal ci ah, diwlin beeg yi demee waaw ah déet mais de façon amul choix ndax moom looloo tax ñu indi ko fi mhm. de façon moom moom amul amul choix ah, loolu tax ñu ñu indi ko donc soleil moom euh, waxtaan lu bëri waxtaan na ci wàllu sport xam nga ah waxtaan na ci ay affaire yu U20 waxtaan na ci yu bëri daal boo xam ne gars yi bu ko ubbee daal dinañ ko mën a xool ba xam li ci Sud Quotidien eh, Barthélémy Diaz démissionné na de waaw mais bon de toute façon. ak de go. waaw mais bon de toute façon xam nga gars yi moom bu événement amee ku nekk voilà voilà wu xam nga wut donc aussi def na ci. mais soo seetloo tamit que depuis presque six mois. Hmm. chaque deux semaines wala chaque mois mu conférence de presse affaire. c'est que il devient maintenant constant communication oui mais bon de façon. Euh, voilà mais non. daal waaw ah, donc euh, ñoom ku ci nekk daal da ngay xool sa yoon bi nga si ci euh, en tout cas disqualifié na Serigne Bass Serigne Bass wax Bass mooy procureur de la procureur de la république. léegi nag comme man procureur <laughs> man ak moom jàmm mooy dox suñu diggante. donc euh, comme moom disqualifié na ko xam naa du ñàkk gars yi bu ñu ci Sud Quotidien ñoom dinañ mën a xool loolu lan moo tax mu disqualifié en tout cas ci biir loolu daal euh, nekk la loo xam ne am na lu ñuy tudd temps yi daal di wax ay haute cour de justice ak ay yu kenn xamul daal mi ngi noonu donc Sud Quotidien moom waxtaan na si yaa ngi doon wax sànq Sonacos bu Fada dem na fa de fi mu nekk nii am na plan de relance d'urgence ah boo xam ne taxoon na ko pour Sonacos bu.

dëkk bu buggee développé état bi mooy imposer population bi ñu lekk li nga xam ne moom la ñuy defal ci dëkk bi te defal ci qualité mu wàññee mais mënuñu comprendre fii sax même ceebu mbéy bi sax ceeb bi ñu importé a moins cher te amul moom ci li mu ñëw mi ngi ñëwaat ci mbiru dix milliards de dollars yi dix milliards de dollars bëri na de al <laughs> dix milliards de dollars nekk na loolu daal Aliou Sall nag dañ ko cee impliqué léegi nag ci biir loolu Barth moom nee na coow li coow li coow li du Alioune Sall de président bi lako wax. mom hmm. la wax bon donc euh, mi ngi noonu quoi légui nak mi bon mom amna lutax mu mu wax ko donc nañu nañu xol ba xam euh, lolu lan lay lan lay lan lay lan lay doon donc déjà lolu nek na lo xamné nañ ciy bàyyi xel ba a euh, populaire ba légui mom dafa wax né préfet bu Dakar dal xam nga tay gaay boy gaay gars yi dem mars pour affaire yu coow préfet bi néna bu ko fi gën def. mom lépp lay tere fu mu ne non non non mais bi néna néna ki na la nee na y a des risques de trouble à l'ordre public. non dama ne. man mhm. damay wax man waxuma pour eh, pour pour voilà voilà dama ne. Mhm. lépp lay tere su fekkee dafa xam laa dégg dafa am risque. mais lépp lay tere opposition lu mu wax mu ne. waaw mais est-ce que gars yi tamit lu ñu si jublu en fait. waaw mais gars yi aussi gars yi aussi opposition bi aussi ah, dañ leen di bàyyi ñuy marche. ñu ngi leen di bàyyi ñuy ah, marche donc préfet bi aussi bu ko interdire c'est parce que ay services am muy service de renseignement mhm. ak ñëpp ñëw nañ defal nañ ko rapport ba mu xam ne lii bu ñu ko defee y a des risques de trouble à ah l'ordre public dans un état daal de droit bu kilifa bi ne li bu mu d'accord wala ñu def ko marche encadrée comme koy d'habitude. oui mais si bu kilifa bi waxé dal nañ ah, voilà donc mi ngi euh, donc lool lool lool wax légui leneen li nga xamné aussi qui na de tous les dangers pour le gendarme bi nga xamné mom mo mom lañ japp né mom mo ray fallu donc mom tay day Euh, procureur am na d'après li ñuy wax daal boo moytul moom euh, voilà caa bi mun na ko féete ginnaaw. Walf Quotidien Walf daal moom ci li mu ñëw nag mooy euh, nee na fi mu nekk nii problème bi affaire Petro-Tim ah bëri na ay kàcc de moom loolu la wax de. nee daal na depuis trois semaines nee daal oh, moom nee moom kàcc moom kàcc moom bëri na ci lool xaw ma nag lan moo tax mu ne kàcc bëri na si bu ko gars yi demee ci page 4 ak 5.

administration ak ki du doxee loolu mënuñu wax dem rek ñu xey tay bugg a dem fofu noonu taxaw. donc kii d'urgence day am. hein urgence d'ailleurs non non mais urgence. waaw waaw waaw dama ne eh, lu ñu bëgg activer activer ko. sa way defal nànk rek. waaw d'accord régulier daal comme da am yoon lu muy liggéey. Ah, te moom mooy mettre des poursuites. moom xam ban waxtu la yaakaar ne bu yóbboo. journal bi bu yóbboo kii bi dossier bi jox leen ko dina baax moom mo xam nan la koy lijjantee. jarul yàkkamti ah, comme enquête mën na jël ay 1 an 2 ah, ans. nañ def nànk rek. ku nekk daal na def li nga wëkk. waaw laas. laas moom nee na ah ARMP. Ah, ah, ARMP kii na de. agence régulation des marchés publics. des marchés publics. Euh, SDE e dugg na ca ndox ma de. lab na de. Hmm. waaw lab na de jox nañ ko siège de. wax nañ siège mbir ma de contrat d'affermage de l'eau yàgg na ça fait trois quatre mois je pense waaw mais xam nga ñoom mais léegi officiel na gars yi dañ defoon appel xam nga et puis ñu kase woon kii bi léegi hmm. fi mu ne nii nag moom SDE moom lab na de mu nga ca ndox ma de fi nekk nii daal kii moom moo ñëw donc déjà loolu dafa nekk loo xam ne laas moom ci la xëy tey suba euh, ka nga xam ne nag euh, moom mooy euh, Thierno Alassane Sall moom nee na daa dafa yaakaar ne daal mbir yi sa bougéwul daal fa mu nekkoon rek fa la fa la nekk ba ba léegi donc déjà loolu dafay nekk li nga xam ne def si def si kii plan d'urgence Sonacos xam nga fi mu nekk nii mbirum diwlin bi ñoom fi mu ne dañ cee dañ cee taxaw ah xaw ma pétrole lañ def xaw ma lan mais de ku fa marché pétrole tey obélisque boo moytuwul gars nañ la gazé de. te weekend nañ nekk. yoo tey le vendredi delul dem de. wóorul de comme daal waa ji kilifa gu mag yi daal nee na bu fa kenn dem. yaa àdduna amul solo. de façon yaa encadré rek. sa waay. moom nee na buñ dem buñ dem. dañ leen encadré. loolu nit réew bu ñu buggee dox nit dañuy am dañuy am kilifa. waay na leen encadré. sa waay nañ am kilifa. bul dem bul dem waay enquête. ok waaw d' accord moom. moom li mu ñëw moom <laughs> waxoon naa la ko manifestation ba interdit nañ ko. Hmm. interdit nañ ko de fi mu nekk nii daal sa euh, moom préfet de Dakar moom dafa justifier décision bi nee trouble à l'ordre public la léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy kii bi euh, ñom ñoy euh, leader yi ñom nee lolu amul ah légui nak ñi nga xamné égal également nga xamné moy docteur Cheikh Tidiane Dièye mom ci enquête nee ñom ñoom jotuñu benn notification au préfet bi bu leen ni xamal né li ni du am marché du am ñoom daal nee nañ dañuy jéem a démoraliser sénégalais yi rek moo tax ñu ñu waxee ko noonu donc déjà loolu dafa nekk li nga xam ne euh, moom moo moom moo taxaw fi ba léegi journal l'enquête li mu wax moom nee na euh, dafa am euh, li nga xam ne mooy gestion scandalu BBC bi nee na daal ci kaw moom cacophonie dafa am. dëgg la dañu mbiiloo baaloo donc jaxasoo yooyu daf ci daf ci nekk li nga xam ne daf si daf si am. Barthélemy Dias moom nee na day bàyyi AMS daf fay jugee. bàyyi na ko kañ. waaw nee na moom est-ce que officiel. Ah, waaw nee na daal loolu loolu daf si daf si daf si daf si bàyyi euh, cancer yi nga xam ne tamit jigéen ñi dañ koy am. Mm-hmm. nee na ñi nga xam ne dañuy dox guddi. jigéen ñi dox guddi nee na ñoom exposé nañ de. te ñoom mooy nañ moytu. waaw donc euh, aussi ki nga xam ne mooy Souleymane Jules Diop yaa ngi koy fàttaliku. sama grand la woon de. ah ah mm. waaw moom nag nee na euh, def nañ ko ambassadeur de. fan UNESCO. mooy représenté Sénégal euh, fofu nga xamné mom moy euh, UNESCO donc mom propulsé nañ ko fofu les échos les échos dal Barthélémy Diaz moom fi mu ne nii mayul Macky Sall ak rakk ji mayul len dara ciow li kun la def fim nek ni nii scandale dix milliards dollars yi dal mom néna affaire bi dal mom waxul dara mais néna mbiru Khalifa Sall problème bi ñu koy jiiñ néna bi dañ koy multiplier par 3200 fois ah, cent fois waaw dañ ko waaye déet àll est-ce que dëgg la moom ah, waxam la rek waaw waxam la moom laay wax ni ma ko man comparaison bi laa lay waxal nii de mais dëggul déedéet moom ñun xamuñu lu nekk ci dossier dara man waxuma déet sa waay wuy ma ngay dem non procureur nee na ku am ay preuve na nga dem dik saa yi yow di nga di nga ñu continuer wala doo continuer ah, ah, kon ne ah kon yow ñi moo nekk de ah <laughs> voilà donc déjà. géy géy géy géy loolu loolu la wax donc euh, Barth daal démb ci conférence de presse am bi loolu la wax rassemblement contre scandale 10 milliards yi préfet bi moom nee na.

waaw coow am na ci diggante euh, opérateur téléphonique yi daal ñii Cour suprême débouté nañ leen ñii Cour suprême nangu na leen pour ñu jenc licence su 4 bi donc loolu mu nekk loo xam ne daal euh, ñoom dañ caa mi ci les ko bu fa gars yi demee dinañ xam liñ. témoin quotidien témoin moom li mu wax nee na Sénégal nañu moytu. oto bi ñuul na ñaaw na marché ba waaw waaw booy booy moo garaaw xoolal bi booy bi génn booy booy bi. oto bii moom booy seex oto bii mooy dem fële fi ñu interdit wallaay mooy dem non man moom man moom ci kàttanu yàlla damay dem sama kër non man damay ñibbi yée damay ñibbi le témoin waaw le témoin moom nee na pétrole gaz Sénégal nañ éviter malédiction pétrole xam nga dëkk bu fi am pétrole coow li daf fay Sénégal du fi am ah non sa waay ah bisimilah d'accord naa mais nit léegi la ngay li ñu wax ne ay du yem ci bopp borom te malaaka bi indi ay xamoo kañ lay romb du fi am nañ bàyyi mu sedd ah, waaw adduna am solo ay spécialiste nag ci nga xam ne ñoom ñoo ci question pétrolière ñoom nee nañ ah joxe nañ ay solution de pour ñu éviter jafe-jafe yooyu noonu ki nga xamne moy mata sis nak moy ministre du pétrole et des énergies mom mi ngi rassuré nee na disposition yëpp jël nañ ko pour affaire yi ñu mën leen ko gérer correctement te coow. exception la ñun Sénégal exception la ñu pays exception la ñu yalla nañ nekk mais nañ bayyi wax bi tamit. waaw waaw nañ wax lu rafet. na leer nañ nañ fi amul ki nañ wax lu rafet rek. waaw mais di xamb taal bi mom di kii pour ay problème crypto personnel mom so waaye loolu moom lu jar lu jar moy moytu donc déjà loolu. nek na li nga xamne daf ci taxaw ki nga xamne nak moy Abou Abel cham mom de fi ni mi ngi dimbalé président bi ak frère ram de waaw donc euh, Thione Seck tamit xam nga rek wax na ci témoin nee na moom xamuloo ne daal moom day day déranger lu bëree bëree bëri bëri. Oh. moom nee na moom loolu xamu tàggat yaram Sadio Mané ñëw na de. waaw tàggat ñëw na Sadio ñëw na démb gars yi defal ko benn d'honneur juróom-ñaari fan ñoo des ci début compétition bi. incha allah ñi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy kii donc bi mu ñëwee nag moom dafa ñëw gën a jaxal. nekk forme waaw dafa dafa dafa dafa waaw loolu nee moom nee ci wàllu xel ak ci wàllu kàttan moom nee na moom pare na donc déjà loolu nekk na li nga xam ne lépp nag nañ ko def pour peuple bi mun a kontaan. macha allah waaw donc déjà loolu nañ si wax mbay ñaa nag mbay ñang nag booy boobu dafa garaaw de booy fi mu nekk nii daal moom public bi dañoo bëgg ci moom ndax prouesse yi muy def. dëgg la na ko indi nag ci coupe kii bi. ci coupe d'Afrique bi. daal bu ko ca dugg. ah waaw donc déjà nekk au rendez-vous rek. ah dañu nekk en forme rek nekk au rendez-vous dañu jouer collectif nag. Euh, non dañuy jouer collectif moom. déjà loolu kii la et puis est-ce que xam nga ne bi xam nga ko. waaw te tey commencé de. Brésil de tey lay dër tey tey lay commencé de moom te ci dëkkam nag la ñuy joué mais comme ñoom seen joueur bi ñu yaakaar moom dugal na ay nju njaaj ba demul donc de toute façon kooku moom. yow bàyyil Neymar waaw mais booy boobu day déggoo rek. sunu lamb waaye sunu lamb eh, combat bi ñëwati na. suba la. Gris 2. suba la rëg-rëg suba la samedi suba. Hmm. suba loolu dafay nekk li nga xam ne dafay dafay dafay doy waar. kenn ki mbay protéger mbay gay la kenn ki nekk. jarbaatu papakan xam nga yaa ngi fàttali ko papakan ak ak ak Mbaye seen combat ba mm-hmm, mm-hmm. ah donc nag ñoom fi mu ne ni genre remake la revanche xam ne lu doy waar la donc kon déjà loolu def nañ nag benn zoom ci seen parcours ñoom ñaar ku ne fi nga jaar rëg-rëg rëg moom xam naa ne lépp lu jëm ci wàllu mbapat moom daanaka ci mbër yi fi ëpp xaalis la bokk te bërikat dëgg si mbapat lay jóge mbërantaan la kay laa la wax mbërantaan la booy giri dee nag moom <laughs> maanaam moom destructeur la mi missile scout moom booy bi boy ay missile la su la rek day door nga nga wacc da lay top du dëkk la de du donc moy ko lamb bi dina neex muy combat bo euh, combat bu doy war donc donc déjà nañ ci bàyyi xel ba te li ci mo 8 combat la 8 huit victoire je match nul sax du ko def boy bi boy bi du def victoire du def match nul bo xamul match nul xamul défaite huit combat huit victoire boy rëg ñëw ne ko man maa la yegg nak rëg-rëg mom dafa ñëw douze victoire la am hmm def deux cent xam nga cent verdict mooy coow li day bëri. combat dina compliqué. mi ngi noonu day compliqué donc euh, déjà loolu Reug Reug moom nee na moom dafa judd rek pour nekk buur nekk roi. macha allah parce que mbapat bi wax li nga bëgg waaw mbapat bi moom wax dëgg neex yàlla wane na fa. Ah. wane na fa boppam. Ah, ah, donc déjà loolee nekk tey ci àjjuma bi nag ki nga xam ne mooy Alioune Sarr. day def war nañ fi indiwaat claf nag claf numéro 2. waaw waaw génne waat yeneen champion. waaw waaw mais. waaw yaa ngi ñëw mbapat yi boo yaa ngi ñëw. donc déjà loolu loolu nekk na loo xam ne lu baax lay doon. donc euh, claf boobu wax nga dëgg en tout cas mi ngi noonu daal suba. Gris 2 ak Reug Reug moom suba euh, mu nekk combat bu bu mucc ay boo xam ne dina am. jëf jërëjëf Seydina borom ñaari galon yi nga tàggoo bokk. waa xanaa li may tàggoo rek di jox gars yi dig daje incha allah euh, lundi. Ah, di ñaan yàlla mbaa ñu fekk jàmm euh, di leen jox di daje également man tey ci guddi ci seen émission mag boobu astrologie bi ñu dippee allo voyance nga xam ne lépp luy jafe-jafe wala jaaxle wala loo xam ne stress la wala ku am lu ko naqari ba ay gàddu gi yooyu yëpp incha allah rabi bu guddee à part de minuit di leen ci mën a wax. 88 628 99 90. mooy numéro magique waaw 11h Pape Cheikh déjà teew na fii si studio principal bu King FM nar a doxal King Feeling ba 14h 14h ba 16h euh, Lisa Georgia King détente musique douce 16h.